mbokk yi sëriñ Abdul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yépp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz jaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñi di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca cees ca quartier ba ñu duppee Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ndoxum siti góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz jaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan yi nit seeni mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz jaw moom a ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz jaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. ñu dem nag ci euh, waa ji nga xam ne bi ñu xëy journal yi xëy nañ euh, daal ni ko dàng ci journal yi nii démb dañ ko arrêté suñu kilifa yi ñoo ko arrêté euh, Jérôme nag lañ koy woowee ñu ngi koy tuumaal tuuma yooyu nag mu nga jógee ci lenn ci journaux yi waaye ay la yeneen enquêteurs yi ko jàpp moom ba léegi communiqué guñ ci waa ji lu tax ñu jàpp ko moom nag journal yi lii lañ baaxoo suñ jàppee nit ku ci nekk di jéem wut ay info yu ni mel waaye Assane daal ko tuumaal mi bokk na ci faatu ñaari soldat yi fi bàyyi ko woon ak ay nervi yoo xam ne itamit doon nañ leen gis ci dëkk bi ci noonu sax maa ngi gis ay nit yu ma yónnee vidéo boo xam ni wala photo bu mu àndee woon ak euh, Dof Ndeye mu fi nekkoon euh, ay tuuma daal la ko gars yi kiyal biñ ginnaaw bi ñu ko arrêté. Hmm. mais enquêteurs yi daal ñi ko jàpp waxaguñ dara mais sénégalais ak journaux yi ñooy wax. waaw am na solo bu fekkee ni réew mi dafa am lu fi jaaroon am président bu fi nekkoon nekkatu fi. Hmm. ñu jekk-jekki ci ay garde corps am ñu jëm jàpp ci benn garde corps. Hmm. téye ko. ah nañ continuer diglu ba xam garde corps boobu lan moo tax ñu dem téye ko ak lan lañ koy laaj ak après fan la mbir mi di mujj. Mm-hmm. waaw loolu daal am na solo ndax démb rek maa ngi gis gars yi di ko windeel mais comme que gars yi waxaguñ li tax ñu woolu kook li tax ñu jàpp kook yooyu xam naa incha allah bu buñ si indee leeral rek incha allah ñu mën cee wax. Mm. buñ ko. buñ ñu indee leeral li tax ñu arrêté ko. waaye léegi mais comme arrestation am na rek dégg nga lu nekk ñu koy wax. léegi ndax léegi journal yi itamit est-ce que loolu yow ban jàngat nga ci indi kon parce que journal yi bind ñu ngi fii ci réew mi ñu jàpp nit rek ñu tudd ay mbir. waaw ah, loolu li nga ma si li nga ma si tax xam nga tey jii nee nañu. non laxasuma ci de. ah eh, journal yi si ñii ngi naan li ñu baaxoo ñu ngi jàpp xamaguñ nu mu doon waaye ñoom ñii ngi naan ñii ñii ngi naan. waaw moo tax mu dugalal la ci ñoom xam nga loolu li tax ma la ko mooy. Mm. comme bind nañ ko te ñee waxaguñ ñoom wax nañ mm. léegi loolu kay ngay jàngat asal. waaw ah, ñoom xaj na dañoo yaakaar rek xañ na moo tax ñu doomi jàmbur rek wax ah déedéet ginnaaw am na lu fi jaar kay ñu yaakaar ni moom kat garde corps yi Macky Sall yi lew si la bokkoon te gars yi ñu génn ñépp wax tudd nañ turam mm. ñu jekk-jekk fekk ko këram jël yóbbu léegi xañ na gars yi dañ si def léegi communiqué ndax waa kër Macky Sall moom loolu lañ ma neexee woon moom mm. buñ séenee benn waay kii sax ñu ni benn waay ab rabel dugg na si dëkk bi robel waaw conférence de presse kay ñëpp ñëw ñu ni ab rabel na jàpp nañ a jam la 19 heures 19 rabel dugg na ñetti terroriste dugg nañ ñoom dañ daan def communiqué. léegi nag kii nañ xaar ba xam nañ def communiqué ku kii dinañ def euh, conférence de presse leeral ñu li tax ñu arrêté ko. Mm-hmm. d'accord Ndiogou. lii daal la ñu xëyee tey démb ak tey ni ko Assane waxee avant ci journal yi jot wëndeelu na ci réseaux sociaux yi fu nekk. Mm-hmm. bi ñu xëyee nag loolu lii ma la wax daal la lenn ci ay journal bind. waa xam nga journal yi bu ñu demee ba nga xam ne na leen gën a nekk professionnel. Mm-hmm. war nañoo xoolaat seen liggéey. parce que bu fekkente ni ña nga xam ne dañ koo jàpp xam le nañu jàpp nañ ko waaye waxuñu lan ak lan du yoon ngay tàmbali di ko jiitu ci ay mbaram ña jàpp ji ñoom xam nañ li tax ñu jàpp ko da ngeen leen di déglu looy yàkkamti mm. vraiment pecc mi kañ fexe la ànd ak musique bi kii musique tàmbaleegul nga bëgg <laughs> yow mm-hmm. dóor pooj. ren da ngaa xamagum lu muy tëkk. xam ah, sa pooj neexee ah, xamagoo xamagoo lu muy tëkk bàyyil ba nga xamante ni bi waa ji tëgg na nga soo ko dugg ci fecc. lu dëgg mais tamit ñu ngi may wax ni ma xabaar que ni moom. Euh, famille Fulbert Samb ak DJ Barzi bi ñuy def seen conférence de presse yi. waaw dañu doon tudd waa ji. waaw tudd jàpp ni daal seetu ci. xëy na loolu moo tax ñu loolu moo joxoñ kon. Mm-hmm. journal yi d' accord loolu yëpp mën naa ne. Mm-hmm. maanaam journal war sa nekk ne ñii ñoo ma joxoñ mm-hmm. ñoom dañoo war a xamal ñooñu du dëgg mm-hmm. Mm-hmm. ñooñu am nañ sañ-sañu tuumaal nit yaa ngi dégg ñii enquête it am nañ sañ-sañu def seeni enquête mu am fu leen seen enquête yooyu bu ñu dem jëli ji nit yaa ngi dégg buñ jëlee nit nag fekk waxuñu la ne la kii ñu jëlitee tuuma yi ak yii moom lañ teg ci ndoddam yow ab journal waroo fee nekk naan xam naa lii laa xam naa lee bu dut hmm. lii di lee est-ce que du la hmm. est-ce que fi mu toll nii ndax ñii waxoon nañ ñi lii ak lële yooyu yëpp yaa ngi ci loo xamante ni hmm. joxe benn xibaar parce que wan da ñuy wan sax nañ yow amoo ci dara lu wóor yaa ngi dégg te nag ki lay liir Sénégal fii ñu bari est-ce yooyu la leen sànq parce que tey jii am na koo xam ne dégg na loolu rek moom dafay jàpp ni dañu ne lii la. Mm-hmm. moom est-ce que yooyu sax du ko calculer. nga ne oh bind ko journal bi nee nañ lii ak lii wala la sa waaye kañ moom vraiment xam nga. yóbbu nga mbir yi feneen. ok donc il faut que ñu xam ne ñii enquête ñoom la tax ñu jublu ci waa yi am na lu tax. Mm-hmm. nañ xaar nag ba enquêteurs yi pare def seen rapport wax ne. lii ak lii dinañ leen ko jox ñu publier bu boobaa ñun ñëpp ñu daa dee xam du dëkk mm-hmm. mais bu ñu demee ba nga xamante ni bii léegi Assane moo gën a am retenu. journaliste yi. parce que lii ñuy def nii peut-être yàq deru nit ki la mais mënut a indi benn influence ci yëf yi. du la si si maanaam lii ñuy def nii parce que ñuy enquête ñoom bu ñu demee ba xool. gis ni lii kat lii la. waa ji du ci dara ci li nga xam ne bi moom la peut-être li nga xam ne moo tax ñu enquête. xam nga ñoom orienté nañ yëf yi foofu sax te yëf yi mën naa nekk leneen. mën naa nekk mbirum Kër Ndiaye loomi sax. mën naa nekk leneen. lu bokkut ak ñoom yi nga xamante ne bi moo tax ñuy wax. <laughs> Kër Ndiaye loolu fa xew. daaj ji place waa ji. xam nga mi ngi lim doon ay journal gis nga affaire day kott benn affaire ba ñëpp jóg di tàjji bu jékki-jékkiwaat. xaabaabal xam nga gis nga <laughs> yow saa ñëw na wax ne li ngay wax tàjji kaw wàcce ñii nga jékki mën naa nekk biir kër Ndiaye yow yaa ngi journal non non pare saay wax dëgg fa yàlla sooy bu dañoo war di yam dañoo war di yam ci li nga xamante ni euh, moom nga xam mm-hmm. waa ji kii jàpp nañ ko am nga xibaar bi war nga mën nga wax ne kat diw jàpp nañ ko mm-hmm. waaye ñu ngi suivre yëf yi mm-hmm. waaw mais bul fi ne naa est-ce que est-ce que est-ce wax dëgg fa yàlla loolu moom baaxul mais journal loolu la baaxoon ak laaj est-ce que ah, ay point d'interrogation rek ak junjëk buñ ne Sa Ndiogou ñu ne s xaw ma n yooyu kat alaaj baaxoo nañ waaw loolu nag warul journal journal dafa war a wax mu leer ay s kii yooyu yëpp ji warul journal point d'interrogation kon warul dañ koo jënd pour xam de ah waaye nekk fi naan di joxe ay initial ak yooyu. waaw loolu kii. ah journal ñu koy def na de am ah, nga naan loolu. est-ce am na yoo xamante ne bii sax boo ko defoon sax ñu mën a wax ne xam nga ñuy def loolu sax peut-être ñoo tane ki nga xam ne kii yow wax nga ni est-ce que du lii est-ce que du lii est-ce que du lii. Hmm. parce tuumaal nañ ko lii ay tuuma la yu dal ci kawam. Hmm. parce que tuuma moom lenn la mais ndax loolu lu wér la wala du lu wér loolu leneen la d'accord donc nañ xam ni tuuma mën na ne d'accord mën nañ tuumaal ku ne mhm. waaye nag buñ defee li nga xam ne moom mooy li ci war déglu la peut-être que liñ la tuumaaloon mën na dañ mhm. mais léegi nit mën na dañ ba noppi lii des fi mhm. ba noppi nit ki di dox ñu koy xoolee yenn yi da fekk ne lañ ko tuumaaloon du loola du dëgg si donc nañ bàyyi yoon mu daal dee def li nga xam ne moom la war a def rek. Mhm. en tout cas moom lu mu ci mën a doon moom bu fekkee ne bii def na moom ci kanam tuuti di nga ci dégg lu leer. d'accord waaw.